Euh, xam nga waaw ñëwul. alhamdulilah bisimilah inna waal yàlla di wax jërëjëf Serigne Touba jaraw la maam Cheikh Ibrahima Fall di wax jaaraama maam Saliou Fall borom Daaru Xafoor di sant waat Daaru Xafoor ñëpp ñu may ñaanal di sant waa Kër Daam Saliou di sant di sant waa Daaru Salaam Diwoli ak Kër Ardo ñëpp maa leen sant bu baax ñëpp ñu may ñaanal. Mhm. ñu gis ko ak bi ngeen demee Sianti Ibamar. Nokia am ay kàddu yoo xamante ni woon na ko jàll ko mu nekkoon kàddu yoo xamante ni métti woon na la ba bokk na ci li nga xamante ni da ko ñëwaale ca làmb ja kàddu yooyu bi mu yëkkitee bi mu ko yëkkitee teg ko ci sa der naka la la non man defuma dara defuma dara parce que man moom xam nga bu ma juddoo ba tey lu nekk dama koy dégg mais en tout cas man daal damay nekk sam li ma war a nekk rek. Euh, ñu gis démb nga dugg si stade bi bi nga dugg see nga ànd ak dal ànd ak dal ba ngeen dugg si digg géew bi ñu ci bari nag nee nañu woon. Nokia moo la mën moo la ëpp doole amuloo chance ci làmb ji. waaw loolu noonu ñu koy wax mooy ñi ma xamul quoi parce que man ñi ma doon bëreel mbapat ba léegi bëreew maak ñoom arène ñi ma doon dajal ba may bëre mbapat ba léegi bëreew ma ak ñoom arène te ñi may kontagal si écurie bi. Mhm. ñoo ko mën. mais bi nga simee ko ñu ci bay nag Guiro Séras dafa tuuti. Mhm. da nga wàññi poids wala loolu nga choisir pour indi ko jàkkaarlook moom. man man wax dëgg su ma amee combat lépp lu dal sama xel rek loolu laay def. amaana nit ku nekk nag ak sa stratégie. xam nga tey ji am na ñoom mun nañ jël poids ñëw di bëre mais man daal li ma ñor mooy dinaa andi condition physique bu doy koofur bu doy xeex bu doy waaw te sa moroomu góor moom bu ma jàppanteel doo ma ëpp doole loolu moom mun naa ko assuré sama bopp assuré ko samay supporter ñu gis arbitre bi sifflé nga daw deltu gannaaw lu war loolu. non làmb lu mu laaj rek dañ koy def waxoon naa ko ñun duñ daw daw ay daw làmb ni non làmb lu mu laaj rek dañ koy def amaana noonu la mënoon demee. abi sifle nga daw génn saaku yi ngeen daw jàppantewaat ngeen bëree ci côté saaku yi mais ñu gis bi xeex bi tàmbalee yaakaar naa yaa moo moo moo imposé xeex bi. waaw wala waaw mu imposé xeex bi ngeen xeex. nga doo ko coup boo xamante ni ni bokk na ci ci li yàq làmbam lan la woon da nga privilégié woon xeex bi moom ëpp wala bëre bi nga gënoon bëgg. non xam naa ne day xaañu noonu du xeex ñamul woon xeex ak yow. non non ma bëggoon sàcc rek man tamit loolu la liggéey xam naan bu baax day ñëw moo tax dama koy may nag mel ni ku ko ragal arrière bu ñëwee ma xeex ak moom. bu dul woon Nokia maa ngi moom bu dul woon làmb quoi ñu daje nii nii rek si mbedd bi. Mhm. déggoo ma ne bu ñu jëflantee ba pare police laay fanaani du maa moom sax. bu du woon làmb ji ngeen daje ci mbedd da ngeen di jëflante lan moo. loolu maanaam dama ne. Mhm. comme ni ñuy xeex dafa foog ne moo ma mën ci xeex wala dara. ma ne la bu dul làmb quoi maa ngi moom bu ñu tase woon fii si mbedd bi bu ñu xeexee maa moom ba pare police laay fanaane. da nga koy duma wala. dama ko lu metti laa koy def. donc yaa gënuma gënuma tamit xam nu mu demee mais ngeen ngeen xeex nga dóor ko mu kaw nga daw woo ko ndomb ñu gis ne am na benn instant dóor na la ay dóor na la ñaari ku benn bi dal ci bopp beneen bi dalaat mais nga jàpp nga gis ne fi nga jàpp baaxul nga dawaat ci ginnaawam lu war loolu. waaw ah, loolu noonu yëpp bëre si biir bëre la rek parce que dafa daw jël ma ma dóor ko tànk mu rëb ma teg bopp bi xam nga siggi arbitre waxul dara après ma def rotation jaar beneen côté bi. nga jaar ci beneen côté bi muy jóg mais li jaaxal nit ñi mooy nit ñi dañuy gis mbër da koy wër ndoom ba mu war a jóg nga yenn ko wala nga pusaat ko mu tëdd mais dafa mel ni da ko doo tànk jël bu rëy nga ko daal. waaw moom amaana nag dafa xamul rek amaana dafa xamul quoi moo tax moo tax affaire yi da koy bettu quoi mais wax dëgg yàlla man moom barki Seydina Muhammad man affaire yi ma. jëli bi bettu la wax dëgg yàlla moom. mais ni nga ko daanee ni nga ko daanee loolu ban kële la. non mooy loolu bëre si biir bëre la rek man maa ko doon yooral noonu téye ko xam naa ne day jóg parce que buy jóg fa benn temps dafa tàlleeku te buy jóg beneen faa mu lem ko ba pare doog am appui ma bàyyi ba mu lem ko après ma door rotation remplacer ko. nga daan ko stade bi ñëpp kontaan. Mhm. ñëpp gis ne liñ doon xalaat ne Nokia moo la ëpp doole Nokia la dàq xeex ak bëre bi nga bëre ñëpp jub tàccu la nga bi. waaw parce làmb moo demee noonu quoi xam nga man làmb moo ma faraloon démb parce que wax ju ñaaw amul solo. Mhm. làmb moo ma faraloon moo ba ma daanee stade bi ñëpp màbb. noonu la demee. Euh, nga jóge nga jóge nga jóge ci ndam lu rëy ndax daan na kii ak bés bi ni mu toll. gaa yi ñoo ngi wax wala fan nga teg sa bët. waa man ma man moom xama nga wax dëgg yàlla du ma ne diw laay bëreel wala du ma bëreeg diw. Mhm. mais képp ku ma làmb boole damay bëreeg yow. xooluma nga ngande xooluma nga tuuti man làmb laay def làmb. mais làmb tamit am na ñoo xamante ni cible nga leen am nga rêve ne su ma daje woon ak ñii tak dina nekk combat boo xamante ni bu may gën a lay wala combat boo xamante ni combat bu jaadu lay ne. waaw tey jii nii xam am na ñoo xamante ni sax ku si mel ni qualifié numéro 2 moom roy kindaa la dafa war a ñëw ñu bëri. de ta kindaa bu ñuul. non non roy kindaa la caarooy la dëkk day roy. roy kindaa la du tar ah, lim dëkk caa daw dem jàmm gën. waaw moom roy <laughs> moo ngi lay seetaan. waaye na ma xulli moo moo xam ne. <laughs> ku laan avance qualifié nga jël ko yóbbu. qualifié. qualifié waaw qualifié laa soxla de ak Mambala. bi doon bëreeg mbay guy Mambala bu géej waay. comme doon bëreeg Papi Général. mais nag mais nag yow Seras daan démb Nokia. ah gars yi wër la ndam li neex ah bi nga bëgg a ñëw fii dama wax ah, ay mamba la. ba ma ñëwee stade gars yi dañ ma ne lii sa buntu làmb la. teg ci sa bakkan ma teg sama bakkan te daan. Ah, ñi may laaj bu ma làmb boolewul ak ñoom rek waxal. déedéet man du ma wax dama laa laaj ñan nga bëgg a bëri. Coly Faye numéro ak Mame Balla laa soxla. grand combat gis nga Coly Faye numéro 2 ak Mame Balla Guiro Séras nee na yéen a bëgg bëri boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon nga tàggatoo ñu tëj ba beneen. waaw ah, xanaa sant waa parcelle bu baax sant waa parcelle bu baax di santu waa parcelle bu baax unité 4 unité 3 bàyyi ma fenn parcelle 1 ba 26 xam nga waa golfu cité Fadia sam booy sam booy fii moom xam nga unité 4 bi booy nii yor sama affaire mobilisation ak affaire booy aw ma seen fay aw ma seen fay quoi xam nga man yàlla daa leen bàyyil quoi na leen yàlla fay suturaal leen ku si nekk li ngay yóotu rek nga jot ko xam di ñaanal tamit. ñum bëy di bëy sama doomu ndey combat bi moom moo gënoon tax ma jël ko waaw parce que newoon na ma chargeur bu sew bi amatul te loolu gëm naa ko mooy loolu di ko ñaanal fi mu nekk rek gënool ko fi mu jógee. amiin ak Zeng sama copain ñëpp. waa di ñaanal ñëpp rek mooy loolu. waaw xam nga Lat na nag combat bi gis nañ taxawaayam waa jàpp na si bu baax a baax a baax xam nga ak madame le ministre Néné taal ak Alioune Sall ñëpp Khalifa Gueye moom. duñ ko wax dara mention spéciale lañ koy wax Khalifa Gueye waaw waali moom non waali moom moom si biir la bokk waaw parce que moo may yóbbu làmb lépp moo koy def xam nga Khalifa Gueye mention spéciale gis nañ sa taxawaay bu baax mu mu ndaw joxoon na ma xaalis nag mais dafa ne wax sombi mais du ma ko wax ñëpp maay sant ñëpp ñi may jàppale xam nga di santaat waa war jaxal di sant waa war jaxal bu baax ak waa war jaxal waa saata waali waa ndoofaan ak liikeem waa colongaan ak waa Diya ak waa Jiba Yela xam nga di sant waa Fass Barigo ak sunu waa dëkk waa Bundu ñoo ko baax ñëpp maa leen sant waa Kédougou xam di sant waa Nioro ak waa Parxandaraame waa Poos Kooto ñëpp Kër Mari bàyyi ma fenn Touba Saloum ñëpp ñu may ñaanal waa Sokone Kaarang am na laay bàyyi ma di sant waa Mbel fa dak waa Mbel fa dak maa leen sant bu baax dëkk ñum Oréra ah, di sant sëñ Daam Mbacke xam di sant sëñ daam Mbacke bu baax borom gaawaan borom daaru salaam xam nga di santaat tamit maam Lamp maam Lamp borom buleel maa lay sant bu baax ak maam Ngunda Fall borom Kawsara di santaat waa daaru Xofoor bu baax a baax di sant waa kër Daam Saaliw ñëpp ñëpp ñi may ñaanal aw ma seen fay ba sëñ Fallou gis ngeen ñëpp ñu koy ñaanal amul seen fay waaye di la wax nag Adama fii laa jàngee école bi classe B jàngee naa fa ak B ak bii ma jàkkaarloo def naa fi sixième quatrième troisième. ak ba ca des. waaw des maa moom mi defe naa ne fii la ñu jàngee di leen jox dig daje beneen yoon yeneen émission ak yeneen bër émission bi balaa muy jeex. ama bëgg nga jëlal ma sa waay benn dix minutes góor dafa jógee si combat quoi. wool ma ko mu ñëw. wool ma ko. xam nga LG. LG dafa am combat. daa am combat la huit. góor maa ngi koy ñaanal ñoom ñëpp. ñi am combat si équipe bi yëpp Itilaire LG. ñi amagul combat ñëpp maaleen leen ñaanal yàlla suturaal leen. mooy loolu Mathiat Ndiaye nga nii laay laay. bisimilah. kaay nañ ah, laa bëggoon wax li tax ñu dàqee mu ci école bi. bam baat bi wax bi daa dee ñoo ngi koy sant di ko gërëm. <laughs>